nga koy liggéey doo ku ne am nga sañ-sañu laaj ko li mu lay liggéeyal fu mu toll kon li maire Talla Sylla la def mënuñu lu dul rafetlu ko euh, parce que day wane ni moom ragalu la jàkkaarloog ña koy liggéeyloo ragalu la jàkkaarloog Thiès ragalu la jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jox ndomba bi bii euh, ne ko li euh, yoral ñu te ragalu leen wuyu ca la la mu leen yoreel may wax rek ni loolu dafa bokk ci euh, démocratie ndax démocratie nii la war a demee warut am lenn lu ñuy nëbboo lu ñuy nëbb wala ñu di ko tënk te askan bi duñ ci jot. moo tax nag euh, jotaay yu mel nii euh, du ñu mën lu rafetlu ko te lu ñu rek ñoo ko rafetlu waa Thiès ndax dafa am ay ONG yoo xamante ni dañ ko rafetlu. état bi au plus au au plus sommet au sommet de l' état rafetlu ko. ba loolu tax ñu jox monsieur le maire ab raaya pour mandargal ni moom kat moo ngay suqali démocratie ci biir réew. kon nag loolu Thiès rek la am te dañ koy sant yàlla euh, euh, muy lu rafet. c'est la première fois ba ñu tàmbalee ba tey di def audience publique ñu jël ku yëngatu ci maire bi mu def euh, modération parce que justement. beneen étape la ndax lii doon engagement bu ñu jël ci 2014 bis bi nga xam ne mooy ñaar fukki at fan ak ñeent ci weeru juillet 2014 ci kanamu euh, conseil yi ak askan wi teewoon bi ñuy fal dañ leen xamaloon ne danoo fas yéene doon bàyyi fàllu Thiès surga comme dañoo dénk nag ca lañu ñu jàppe it ne lii nu dénk moomuñu ko comme moomuñu ko saa saa dafay jaadu ñu daje ak ñiñ ko dénk wax leen fañ ci jaar ci diir bi weesu euh, lañ ci am ci ay jafe-jafe ak lañu dëgmal ci diir bi ñu jëm bu boobaa ñu waxtaane yooyu ak ñooñu ñu dénkoon ngir su fekkee dafa am yu ñu war a yi ngir su fekkee dafa am yu ñu bàyyiwul woon xel ngir bu fekkee dafa am xalaat yu gën a jub te gën a rafet yu mën a tukkee ci biir askan wi ñu déggoon ngir gën a mën a rafetal liggéey bi ñu mën ko def bañ koy defit dañ ko wutal ay bis muy 30 octobre ak 30 avril li tax ñu def ko ni ko amee doon waxee c'est pour ëllëg parce que institution day wéy nit ñi incarne institution yi dañuy jàll bis bu euh, loolu saxee ba nekk tradition bu wér euh, kenn dootul man boo fi jiitee ci maire bi 30 octobre jot wala trent avril jot te doo wax waa Thiès lan moo xew ci dëkk